asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp di ko ñaanal Cheikh Mouhamadul Bachir nekk ci bopp njabootu Cheikh Ibrahim sunu borom kattanal ko ba naal yi nga xam ne kilifaam yi ko jiitu woon yépp naal nañu ko mu àggale ko naal ay naalam. àggale yëpp di nuyu kilifa gu baax gu tedd gi ñëw ci béréb bii tey di Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké Noreyni sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu noo ngi lay siyaara noo ngi lay sant di am mbégte ci jataay bi bu baax kàddu yi day lu mënta ñàkk rek ndax Cheikh Mamadou Bachir Mbacké mii doon yëkkati kàddu léegi yëkkilu yëkkatiwul kàddu ci ngir man dafa yëkkati kàddu ngir sa jëmm ndax yàgg na maa wax ne Sëriñ Basiiru moom ëpp na ma te it moom bu waxee bu ko nit ñi dégloo baa nu seetaan ko danañ xam kii wax ki mu doon bis bi ngeen jëkka nuyoon te wax naa la lenn ci moom boroom xam-xam la boroom yitte la boroom taxawaay la defe naa génération bii mu maaseel ku ci taxawe woon ni mu taxawee dana demee neneen te wax naa la fii ne la bi muy wuutu Serigne Cheikh coro way juróom Cheikh Mamadou Lamine di way juróom ci wuutaayu jataayu way juróom ci la wéyal am njàngam ba am te boobu mooy xalifa mbooloo wër ko boo demee fii ci sàmm ñaar téeméeri pàkk la ko ci Serigne yu jox na ko sa wàll ci Touba kenn ku ne jaay na ma benn amut kum jox dalaa jox addiye xamewul taalibe bi lenn ba noppi def fa daara def fa école di bi ba noppi di sëriñub daara bi kon bu taxawee wax dara xaj na ki ko xamul xamu ko waaye man xam naa kii ku mu doon am Cheikh Abdoul Bachir Mbacké moom mënuma ko fay nag sëñ bi ci moom lay jëkki cant gi ndax ganaar sax bu ma ko doon suqi dana tàngal ndox andil ma ko te loolu dara waralu ko lu mooy wetti lu rek ak bëgg noo jàppale ak bëgg noo dimbale ak bëgg noo taxawu kon sant nañ ko bu baax sant nañ ko ci biir sant nañ ko ci bitti sant nañ ko ci àdduna bépp ñu dégg ko jataay bii lu ne def na ko ci teraanga ju nekk yónnee na ko fi keroog bi nga fi ñëwee ba wàññi ko bi ma ko jotee téléphone dana ma santal ma sëriñ bi lu ma yombul danaa ko def mooy sóobu ci nit jàpp ko ndax jàngat naa ci moom loo xam ne sëñ Bambay kese nekk ci sëñ Modou Kara te moom mii dana danañ wér di waxtaane lu bari am na lu ma xam ci moom kon sëñ Basiiru noo ngi lay sant yàlla na sa yéene yàgg yàlla na nga yàgg suñu kanam suñu xol sedd na lool ndax dimbale nga nu di sant sëñ Moustapha Guèye mii sëñ Moustapha moom day man may moom ànd bi yàgg lool kenn ku ci nekk boo demee ca këram fekk fa aw turandoo wax naa la ne la démb doomam la fa jëkk a yónni jël ay teraanga jox ko tey jii mu ñëwaat defaat noonu ànd ak ay rakkam ñoom ñi ñëpp Serigne Cheikh Serigne Mbaye ak Baye Serigne ñëw wettali suñu ci jataay bi te jot gi jafe na waaye jaral nga leen ko ndax sa sa melokaan wettali na ci lu mu mën a doon mooy boroom kër gi taxawu nañu ci lépp sëñ Baara moom ma doon nuyoole léegi maama ma gor fii maama ma sanc fii muy xelifab sëñ Cheikh Baara moom it di taxaw borom taxawaay bu rëy dama koy wax waxtu wu ne na ko yow ca ruuj ba nga ànde woon ak nun ba mu nuy wutal courant booba du kër gii kër gu njëkk gee la waaye mu du duñu wett wettili waxtu wu nekk moom it noo ngi koy sant bu baax ak dëkkandoo yi ma yàlla booleel ñu bokk koñ bi it dëkkandoo yi noo leen di sant ndax ñu ci nekk démb wala bërki démb laay yónnee wax na nee leen damay am gan démb toog naa fi ba 5 heures de maa ngi dégg ci kër gi ñoom ñëpp nekk fi waaye ku nekk dama ne la feseel fexeel ba ne ci liggéey bi te fas ci li nga bëgg rek kon ma waa koñ bi xool gii ñu lay xool di jàkkaarloog yow boo leen ñaanalee rek liñ bëgg lépp mën nañ ko am kenn ku ne day fas fa mu nekk ca yéeneen ndax lu nu am bëgg nañ ko bokk ak ñoom ak soppe yi nu sëñ Tuubaa boo leen nga xam ne danoo sopp rek ngir sëriñ tax ka ko jiite sëriñ Ousmane Kama nee naa la def nañ ay fédération ba ñu ñëwee ci man it di ànd liggéey dama leen man de xaw ma lu may def waaye nañ fexe ba fu ñu jëm di sëñ Tuubaa rek bu ñu wootee tubaa ca kanam su suñu addiyee dem na at mu jot ñu siyaare mun Muntaxa Poroxaan gee dañ faa jël ay maam jaara yoo xam ne ñoo leen gàddu di leen fayal suñu bopp ngir noonu sañu ñoo dajale at yi di ko lekk waaye sañ na ñoo ànd liggéey sëñ usmaan la leen jiite ci góor ñi ak soxna Soda Sarr jiite leen la leen ñaanal ñoom it ndax dama ne leen woon lu ma sëriñ bi fay yàlla nañ ko bokk kon wettali nañ ñu ak yéenu àndal sëñ Mahamadou Makhtar Diop mii ak sëñ Daaru ak sëñ Mahamadou Silla ak sëñ Pape suñu rakk ak waa kër gi yëpp boo gisee may mujj kaddu yi ci yow it mooy bu ma ca daaneelee rek lañ lay jox kàddu gi te moo tax may jot sant gi may leen di sant muy tàbb ci sam nopp nga toog di ko déglu li ma mënut ci ñoom yow mii da nga ko ci man mooy boo bu duggee ci sa nopp rek lañuy ñuy yéene lépp man a faju looloo tax may di ko yëkkati sa kanam ndax jot gi bariwul te wax nga ma léegi ne ba nga gëjee toog jataay yu mel nii booba man fukki at lay am kon loolu kenn xamul lu mu tudd li nga def ak ñu baax ñi nga àndal sëñ Cheikh Abdou ñëw na fi bu yàggul ci koor gi te mooy xalifab Serigne Cheikh di kenn ku nekk xam na ne sëñ Cheikh di marqué na ay apprentam ci yoonu lislaam dii ne jëmu ko yoon wi jëmu ko ak bokk jëmu ko waaye moom mii di Cheikh Serigne Cheikh Abdou it liggéey na liggéeyu boppam tey ba boo ne woon Serigne Cheikh Abdou te waxoo moom Baye Cheikh Khady it ñëpp xam ki mu doon ngir taxawaayam ànd koog Serigne Ousmane mii di rakkam ak Serigne Mahmoudan Serigne Moustapha mii di doomi sëñ Abib sëñ Cheikh Badar rakkam bañ na ko ba sëñ Badar Kara la ñuy wax barki démb nga ko woolu mu ñëw daarul maxti te fii lañ nuyoo léegi yow nga jël wali su yére jox ko juróom-ñaari complète yoo xam ne bu ci nekk cher na lool barki dem bi delloo na ko njukkal ndax woo na saam gépp ndaje boo xam ne yaatu na mu ne day sant sëñ Tuubaa delloo njukkal sëñ Ahmadou Mbacké Kara loolu it ñoo ngi koy sant sëñ Cheikh Badar ak sëñ Xaadim Jeng ku ñuy wax sëñ Xaadim Jeng moom mu àndaloon kenn ku ci nekk bi mu déggee yëf yi dafa bàyyi yitteem bàyyi léppam ñëw ànd ak noonu taranga ji di la sant nag di sant ñëpp képp koo xam ne daal ànd nga noonu bés bi ngi lay sant te li ñaan yàlla li nga xam ne gan gi wàcc na fii la la la maam Cheikh Mbay waxoon ba sëñ Fallu ñëwee fa moom na ko xaw qawmun ida xallu bi man si mansilatin xalla nada wa xallatil jawi anwaaru tashaaquhum kulla ardin yansiluuna biha ka annahum yi am amtaaru wàcc gi nga wàcc fii yàlla na yàlla taafantal nañ ci barke boobee ba lépp mat kon kuñ tudd ak ku tudd jànkatu xasaayid yi ak kuréel yi ak ñi dokkoon ci waañ yi di togg ak caméraman yeeg sécurité yeeg ñëpp ndax démb lañ fi tàmbali ñëw di saytu béréb bi sëñ moodu nun li ko sëriñ siiru Mbacké mi waxee rek sunu jaxasoo ne mi ngi tàmbali ca 11 novembre sëñ Mamour Mbaye mi seere la ci donc sëñ Moustapha Kane ñi Ndakaaru ñëw nekk ci Touba TV bëgg sëñ Touba di jeex ci sëriñ Touba lii nu def rek ak woyeef laa ko bu baax dégg bis bi démb tuubaa lañ jóge dem Ndakaaru wàññi ko waat dellu si waat li ko waral nag mooy doomu aadama nit day am njariñ te yow am nga njariñ am nga njariñ gi mooy sa darajey bopp ak sa tolluwaay ci ngay jëkk a sagale nit ndax lu naan mës sa am wala mënee su ko am ngay defal sa kooku loolu jiitu na ci melokaan wi bi nga fi gëjee barki démb bi nga fi ñëwee ak léegi bu ma tee fukki fan ci la yem te damaa ñëw daarul maxti di la siyaare si nga ne nañ dem sa kër jullee fi gee jullee fi timis jullee fi gee toog fii ba mu guddi lool doyatul barki dem mu ma toogaat nga ne altine ji dañuy ñëw ca kër ga ngan goo xam ne lu ca war lu nekk nga def ko kon xam nga bëgg noo dimbale rek a tax loolu nag am na lu muy wane noo ngi la ciy sant bu baax yow amoo lu may genn bëgg muy Serigne Touba rek wane liggéeyub Serigne Touba bi rek taxawu njabootu Serigne Touba gi rek jot gi bariwul te ku ne xam na ne am nga ngant yu bari ndax yi daje ci yow waaye nga ñëw fii rëy na ci noonu nag noonu nag amunu sunu cant li tax muy ñàkk solo mooy cant gi daal tolloowul ak ki ni sant ndax sa jëmm daa ëpp sunu sunu jëmm ba mënuñu laa sant waaye bu nu barkeeloo ci kàddu Serigne Bassirou Mbacké mii nga xam ne dereti Serigne Touba la ak li mu seere wax ko ci yow dalal na ci sunu xel bu baax a baax waaye sant nañ la bu baax gërëm nañ sagal nga ñu it ndax jot yombul ak fii jamono bi toll nga jógee daarul maxti jëmm nga fi yabal sa njaboot ñoo di fi teraanga yoo xam ne loo fi gis rek mën nañu sa teraanga la te loola bu la sooboon loola mën naa bañ a am boo ñëwee la ñu am ak la ñu man ñu jéem koo def waaye da nga noo won ne sama kër laa jëm si fi may jëm si maa ko moom kon li fi war a nekk lépp maa ko fiy def ba tax na lépp mat sant nañ la yit gërëm nañ la bu baax a baax ñëpp daal nan maa maase ñaanal sëñ Mouhamadou Kara Mbacké noo lay ni sunu borom yàggal ko fi mën ngaa sagal nit lool sëñ Tuubaa lii taxoon ñëpp topp ko mooy sagal nit ñi rek ak dimbale leen ndax kenn amul njëgam sëñ Tuubaa fii ne kenn amul dayee bu toll ni defal ko lu tax nga mën a am li nga am ci moom waaye moom moo wàcce ndimbalam ak yërmandeem ba nit ñëpp mën a mën a tolloog kon nag sant nañ la bu baax a baax jataay bi rëy na ci ñun jataay bi fees na ci ñun lool ndax am na ñoo xam ne ay at ñi ngi la bëggoon a gis tey jii ñoom ñëpp gis nañ la bari nañu xalaatutoon ne daanoon la mas a gisit tey jii gis nañu la nga yombalal nu ko sagale nu ko ngir jëmmi Serigne Touba kon yàlla na Serigne bi fay la sëñ bi kattan la li nga bëgg ci Serigne Touba daal yàlla na am li Serigne Touba bëgg ci yow yàlla na am liggéey bi foo ko bëgg a yóbbu suñu borom kattanal la nga yóbbu ko fa wax la ma waxoon rek laay daaneele mooy séen doyul waxoon naa ko maa ngi koy waxaat waxtu ne sëñ Modou boo koy séen rek doo ko xam démb dafa am ko baax ko may waxtaana ba yàgg mu ne ma ne sëñ Modou li ma jaaxal ci moom saa yu ma ko tuddee rek dinaa ko gént xam naa yor na yëf ma ah, yaa ko xam yow mi borom mi yëf yaa yor na yëfam déet waaye tabe ak mën a dimbale nit ak sagal sëñ Moustapha Guèye mii moom bu léegi rek dana ma sëñ sëñ Modou wootee guta moom bu lay wootee nga den ak moom neex na loolu kat wootee nga den ak moom neex na ndax loolu lépp mooy sagal la ci nitam ak ak teral la sama doomi sëriñ yi fi nekkoon ak waa kër gi it wax naa la ko léegi ñoo futti ku nekk ci liggéey bi ànd ak waa koñ bi waa koñ baa ngi nii tey way jur yeeg ñëpp kenn doxul kon nag sëñ Modou daal nag ku ne fas li bëgg ci xolom nga ñaanal ñëpp sant nañ ak ñi nga àndal ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen xaj na li def ci kaddu yi dañuy wax ne bu sa xol seddee doo xam looy wax Cheikh Abdou Aziz Mbacké mii ngi koy nuyu moom it muy rakki Cheikh Amadou Bachir mii jiite commune bu euh, Mbacké Kajoor moom sëñ Bachir yi moom ñoo bokk ñaari way jur Cheikh Abdou Aziz mi nekk ca Mbacké Kajoor moom it nekk ku baax kon kilifa yi fi nekk yëpp sëñ Ousmane ñoo ñu ngi sant sëñ Mara ñëpp gërëm nañ leen ne ma ñëpp balaax ko lu des ci kàddu yi ñu jégal ma ko ndax sëñ bi jataay bi yàgg na te war naa yëkkati jataay bi ñu jox ko kàddu gi mu yëkkati ko noonu ngi tuub bu baax a baax